ñëw na fa mhm. waaw riiroo ba bëri na fa lool ñuy wax ci wàllu euh, mhm. tawaaf bi nga xam ni mhm. ci jumaa ja euh, ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor sécurité jumaa ja xamal leen ni ñii fii kat mbirum tawaaf moom tawaaf moom màkkatal euh, mu karam rek lañ ko xam dëgg la dëgg la ba tax na mbir mi indoon na mbir yu doy waar te loolu c'est la première fois ñu gis ko ci histoire sëñ Mamour Mbacke loo loo ñu mën a indi ci leeral lool xam naa sax dafay doon mm, loo xam ne day mel ne sëriñ bi bindoon na ko ndax dafa mel ni àdduna lu muy gën a dem yu bees di am maanaam yoo xam ne xamee su ko daanaka sax histoire bu yàgg la ginnaaw lislaam am na kuréel yu bëri yu bees yu juddu di wootee seen bopp ay jullit am ñu dem bay jël keneen di ko def ab yónnente ndax yaakaar naa gis nga ci suñ mbokki chiha yi am na ñoo xam ne dañuy dem bay xaabaabal bay ëppal naan jibril daa juum bi ko yàlla joxee nubuwa gi pour mu jox ko Aliyu la ko joxloo woon mu jum jox ko Muhammad xam nga deesa kon ñooñu moom eh. deesa ëppal nañ te pourtant ay jullit lañ nee ñu waaye nee Jibril dafa juum ndax Aliyu la la yàlla yónni woon nee na mu jum jox ko Muhammad kon ñoom yàlla la ñuy juum la te yàlla du juum ndax inna laaha laa yaxfaa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul aliim nga gis ne kon ginnaaw yonente bi rayante bi nga xam ne moo amoon ci biir diine lislaam nga xam ne ay junniy junniy nit faatu nañ ci la ko waral mooy ay kuréel yu bees yuy sosu bi Aboubacar toogee problème amul bi Omar toogee gis nga ne ci la problème yu commencé ñu ray ko Ali yu toog euh, euh, Ousmane toog problèmes yi gën a gën a gën a gën a gën a yaatu ñu bëri sosu ci waa këram ay kuréel yeneen sosu Ali yu toog mu gën a pire Muawiya taxaw fee Ali yu taxaw fee Euh, euh, nu doom yi doomi xawee ji moom it ñëw. Mm-hmm. jaxasoo yi bari dem ba daanaka compliqué lool daal ci ci ci xaalamu islam yi. léegi nag boo xoolee ginnaaw ba it ay kuréel di waat ay kuréel di sos ñi naan ñun lii lañ gëm ñi naan nii lañ gëmee yàlla ñi naan nii lañ gëmee yonente bi yooyu yëpp di dem. Mm-hmm. waaye mu am ci yu bëri yoo xam ne doo leen boole sax nag ci lislaam ndax yonente bi dafa bindoon ni ab jullit nii lay mel léegi boo xoolee mbindu bi yonente bi ak seenu doxalin bu bokkul nga xam ne ñuy bokkuñ ci diine léegi nag. Mm-hmm. sëriñ Tuubaa wuutu gi mu wuutu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xarfan mhm. bi xarfin anta al aminu bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin wa ma fii jili sarwa ba dane kon yow sëñ Tuubaa da ngaa yere ni yonente bi yere daane kon ndëggul boo ko teggi woon tànk ba nga cay teg mayem ci képp nee na mooy ndëggul tànkul xaadim rasul nga xam ne dafa roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi xarfin mhm. da koo roy ci lépp mhm. léegi kon doon gim doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko nga xam ne sëñ Tuubaa moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lislaam doon na ko ci lépp ndax moo ko bindal boppam dond ko ci sunna ci yeesal sunna lil Mustafa nawaytu maa yu jaddid sunnatahul xarra wa inni ahmadu wa sunnatahu insha arabi ubaylu loolu lépp mu wax ko léegi na kon ginnaawam la feeñoon ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est normal mu feeñ ci ginnaaw Sëriñ Tuubaa léegi nag nuñ koy lijjante mooy nañu lijjantee woon ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wa kuréel ya doon sosu bañ leen di méngaleeg alxuraan ak hadis ku ci wuutee ak alxuraan ak hadis ñu génne la ci diine xam ne bokkoo ci ginnaaw sëñ Touba itam sëñ Touba am mbindam mi ngi fi. waaw dëgg dëgg. 1927 la fi jóge woon yàggul. bu matee téeméeri at la cay teg bëriwul. ay doomam barki Dembo Ndiaye lañ jeex Serigne Saliou 2007. am bindam tay jii ba tay da ngay gis am mbir ñu lii moo ko bind ci loxol boppam kenn photocopie wu ko. Mm-hmm. léegi nag nañu jël mbindum sëñ Touba. la mu bindoon ci ne ab murid nii la war a ñu xool ñoom seenu doxalin bu méngoo bay benn ñu ne ci lañ buñ bokkul nag ñu xam ne bokkuñ ci. léegi nag loola dafa bëri loo xam ne dafay sosu ñu di leen tudde ay secte ah xam nañu yoonu murid bi force la doole la. Ah, te force bii bu ñu nosoo kenn attanu leen état sax attanu leen léegi nag il faut noonu l'islam yi di jëfandikoo seeni xel mm-hmm. parce que. dama bëgg loo xam ne dama dafa am loo xam dama bëgg kilifa diine yëpp bàyyi ko xel rawatina ñi ngaan ko yoonu murit du sax lu luñ leen di digal waaye xalaat la rek bu ñuy joxe mhm. mooy tubaab yi dañ doon xeex ak sëriñ tubaab physiquement ñun nag dañuy xeex ak ñun mentalement mhm. ba tey ñu ngi xeex parce que maam ya doon xeex ak suñu maam mm. seeni sët ñooy xeex ak ñun sëti sëriñ bi duñ ma sa teg seen gànnaay mhm. léegi nag kon na sëriñ tubaab doon xeexe ak ñoom nañu saytu loola man koo xeexe ak ñoom ci alxuraan ak xam-xam wala suraadiya xayral hilmi wa diini sëñ Tuubaa lu tax xam-xam ak i diine mhm. nee na bu may xeex ak ñoom damay xeex ak ñoom inni mujaahidu euh, inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa mhm. habdan qadiman wal muhayminu saahidu nee na ci xam-xam mhm. ak ragal yàlla laay xeexee ak ñoom loolu la sëñ Tuubaa waxal boppam léegi na kon mu jot nag ñu gën a nosu gën a boole suñuy doole parce que yoonu murit kenn ñemewu leen léegi sax la jamono dem réseaux sociaux yi ngay dégg lu ne waaye wolof danaan bukki bu yebee ponkal ca doxin bala nañu gën a xoolaat suñu doxalin gën a xoolaat suñu toogaay fañ tegoon sëñ bi ñu gën ko faa teg bañ a topp modernisation yu kenn xamul ah sëñ Tuubaa c'est quoi nangam ba ci quoi duggee la lépp yàq bu jëgg murid dañ ne woon ab dof la caay ju rëy lay sol takk ay ndomba yuru kuur di tudd yàlla bañ demee bañ moderniser ko naan c'est quoi sëñ Tuubaa c'est-à-dire mais lépp day yàqu nañu dellu fa ñu nekkoon. dund ci sëriñ bi sax ci sëriñ bi di liggéey sëriñ bi bañ am benn itteey adduna bu dul sëriñ Tuubaa. bu boobaa nag luñ song luñ song dañ koy daan. waaye ñii nii. kuréel boobu ngay wax ñu naan dañ doon tawaaf ak yu kenn xamul. bari ki démb la benn tariixa sosoon xaw ma boori Kolda. ne Mbàkke ruuxu maanaam sant sëñ Touba lañ jël ko ndax sëñ Touba nee na dafa feeñ ci biir seen biir eh, diine ji léegi barkeeloo ko teg ci eh, eh, ruuxu xaw ma yu kenn xamul ñooñe boo saytoo ñii ca lañ bokk maanaam dañuy làmb secte franc-maçon yeeg lobby yeeg góor jigéen yeeg yooyu yu mel noonu ñoom ñoo koy créé mu mel ni diine léegi nag dañuy yebal benn kuréel bu ndaw ñu dem làmb bu nooyee ñu mag ñu ñëw bu dëgëree nag ñu deltu ginnaaw seetiwaat beneen stratégie <laughs> waaw moo tax maa ngi ñaan kilifa yi nañu gën a vigilant ci loolu aussi kuréel bi saytu sécurité jumaay Tuubaa parce que jumaay Tuubaa mooy patrimoine yoonu murid nañ leen gën a dooleel. Mm-hmm. gën leen a jàppale ci formation. gën leen a jàppale ci ay matériel ay jumtukaay. Mm-hmm. bu bu bu ko aajowoo sax ñu defalal leen ay autorisation port d'arme ñu sañu yor ay armu mm-hmm. parce que kii aare dafa war a aaru moom ci boppam ba noppi. parce que à tout moment ku ne mën naa dikkee nu ne. ñoom mën nañoo dikkaat waxtu wu ne mën nañoo dikkeewaat neneen nu bokk nag ni ñu dikkee. ñu gën leen a yi itam ci wetu police. man damay wax ne kilifa yi normalement war nañoo mën a tabax police ak gendarmerie boo xam ne. grande mosquée moo koy tax a jóg ci wetu jumaa ji mu am ab police ak benn gendarmerie boo xam ne jumaay tubaab rek la ñuy sécuriser ndax bu dul dara bu dee saa rek la fa nekk ci matériel rek dafa yell ñu aar ko rawatina jëmmi sëñ Tuubaa ja fa nekk mais rawatina patrimoine yoonu murid kon Touba mosquée dafa war a am brigade gendarmerie ak police. Mhm. boo xam ne jumaay Touba rek la ñuy sécuriser ak li ko wër. loolu yaakaar naa buñ ko defoon yu mel nii yëpp dana saafaraw. waaye police bu nekk ca garage Dakar wala ba ca Guy Mbind wala ba ca Jannatu. yu mel ni bu amee buñ leen woowee bala ñoo yegg si. musiba mën naa am. musiba daal waaw moo daal saa yu si daal foofu. baatin bi nag ñu bàyyeekoo ak borom jumaa ji. moo yaar lépp. <laughs> jërëjëf. jàmm ji info. informer, éduquer et divertir dans a jot